rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe mbokki làmbaay ñu ngi leen di nuyu kenn ku ñu nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëñ Daawda mi fi teew ak sëriñ Mambay Gueye ñu jottale ni ko ci mboolem képp koo xamante ni teew nga fi ci liggéey bi bala ñuy dugg ci leeral gi nag dañuy santat yàlla bu baax a baax a baax ndax suñu xel dal na suñu yaakaar tamit yokk na ci liggéey bi ndax njëlbeen ka sewoon na lool metti woon lool waaye mujj na neexa neexa neexa lool ban fàtte lépp loo xamante ne duñ mën a leeral lépp nag waaye dañ koy tënk rek ndax liggéey bi mi ngi woon ci xelam ku ñuy wax Mouhamed Ndiir ci Touba Moussa Ndiir yaakaar naa bu ne mooy jàngale alxuraan ci Daaru Njaay ñëpp nañ ko xam bisub alxames ci ngoon ñu daje ndondal mu wax ma ko fekk fa oustaz góor gi ñu toog waxtaane ko ñun ñett ma ne ko nag comme que danga ko génne ci sam xel ñi saa ko nga ñaan ci bëgg lépp sama borom ko mu ne ma da ngeen ci góorgóorlu di ngeen ci am yaakaar di ngeen ko ma ne ko nag liggéey Sëñ Tuubaa la na nga ko waxee ni mbooloo bi yëpp jóg ñu ànd dem waxtaane ci yaakaar naa ba xas bi del see lañu woote réunion ci kër Sëñ waxtaan bi liggéey bi war nañ koo mën a doxal ñëpp rafetlu ma ne leen nag liggéey boo mënti gis wala ko nite tàmbale da ci am digal ndax ñetti yi nga xamante ne ñoo fi nekk loolu Sëñ Tuubaa di Cheikh Babacar Ndiaye sëriñ Aliou Diouf Lambaye ak sëriñ Momar Maane Mbaye bu diine taxawee ci Lambaye ginnaaw yàlla ñoom la ginnaaw sëñ Tuubaa ñoom la kon bu yàlla dogalee ñu di tudd tànk bokk ci ñoom nekk fii ci pencum Lambaye di fi taxawal diine kon képp koo xamante ni yàlla dogal na mu bokk ci ñoom te nekk fi ne leen sol suñu daal dem ba ci ñoom kenn ku ci nekk ñu gaaral loxo buñ ci amee ndigal ñu sos liggéey bi yaakaar naa bu ma jumoon mexe lañ jiit ci sëñ Amdi ginnaaw ba bañ fa jógee sëñ moo nekkoon xalifa ko sëñ Aliou ñu dem ci moom bépp kilifa boo xamante ni yàlla dogal na nga nekk ci tugg làmbaay sol nañ sunu daal bi euh, teg sa tànk bi ci moom waxtaanee ak yow ci liggéey bi nga ñaanal nga ci ne ànd nañ ko ak yéen bàyyi benn kilifa nag ba ci sëriñ Ahmed Diouf mu ngay dal yàlla na yàlla doole ay leeram ginnaaw yàlla bu liggéey bi ëgsee yoon wi indi bi fii moom moo nu ko tegtal ndax dafa jaxasoo nag mag ñu bari ci làmbaay léegi bi doxalee ko doxal di ko doxal di ko doxal ko lu tolloog ñetti at mu ne leen ab liggéey ko doxalee bu mu agsi fi dañ koy jébbal borom a jàpp bisub ziar jamono yooyu ko defoon ñu yóbbu ko ci Cheikh Sidil Muxtaar ñoo ko fekk kër ngànn jamono yooyu la doon wax ne ku ma fekk kër ngànn ma la la sëñ Touba defal ñoo ko fekk woon ak xumaan at mooma ci lañ ko yóbbu yor bi ci njiital sëriñ Adama Ndiir woon bu Lambaye ñu dem yóbbul ko daayira bi yët ko addee ji ànd ak mbooloo mi yépp biñ génnee addee ji ba jox ko ko pare moom moo génne ci làmmañu boppam ne safinatul amaan sàkku ñu woon sax aw moom moo naan mbooloo bi jóge làmbaay tudde naa ko safinatul amaan biñ ñibbisee làmbaay lañ tënkaat loolu tënkaat ay carte membre di ko doxal ko doxal ba fekk waat ko fa mu ñaanalaat na ci leen seen jëfi daaw ji ak weeram ji day yépp a nuroo te lépp a sell na ngeen ci góorgóorlu te nag na ngeen ndax yaatu gi mooy sama ndimbal te mooy seen ndimbal yéen te loolu ci sëñ bi bëgg gannaaw ba fi bàyyi ko tamit at mi Cheikh Mouhamadou Mountakha toogee fekk nañ ko bul kayal ak daayira bi leeral ko li nga xamante ni moo nekkoon doxeelu daayira bi ak ni ko sëñ Sidi Muxtaar tuddee moom it mu xamal ñu ne bokk na ci liggéey bi waaye nag bu ngeen delloo ba ca làmbaay fépp fu liggéey bu mën a yegg da ngeen fa yeggale biñ ñëwaatee ba toog dawalaat lu tolloog at ñu xalaat ne comme que yàlla dogal na li ñu bëggoon ci làmbaay booloo gi am na ci ñun liggéey bi nag waruñu tey yem biir làmbaay comme que kilifa ci laa njëkk a toog moom ne ko liggéey bi ay doomi làmbaay ñoo nekk ca Ndakaaru di fa yor ay liggéey ëpp ko ñoo liggéey ëpp xam-xam te gën yoon kon liggéey bi léegi nekkatul loo xamante ni dañ koy yemale biir làmbaay gi dañ ko génn bi ma waxee loolu ñoom ñëpp tamit yàlla ñu ànd ci laa njëkk a woo euh, kii fay Malick Faye wax ko ko woo si Ibrahima ñoom woo sëñ Mambay woo woo ci jëwriñ ñu bare bare ñu waxtaan ci léegi ñu ne bi ngeen ñu leeral ko euh, bi ñu wootee réunion tamit ñoom xamal leen la nga xamante ne nii moom la daayira bay doxee ci dëkk ba ndax daayira ba fi mu toll nii dañ daa def weer wu dee ñu daje ci benn dëkk jàng alxuraan ak xasida natt ay euh, weer yi dee dajale ko léegi bi ñu demee ba def noonu ba yàlla dogal mboole bi gën ko bëgg ñu yokk ko def ko weer wu ne ñu def ko ci ñaar yoon bi ñu fekkee weer wu def ko ci ñaar yoon nag ba loolu lépp jàllee ndax lu ci baree bari lay doon loo xam ne ni histoire la ñu ko mën a tëgg ci ci gàttal a def ngir leeral leen liggéey bi fa mu dooree ba fi mu ëgsi bi mu ëgsee fii tamit li nga xamante ne moom lañ jublu ci liggéey bi mooy boole làmbaay gépp ci benn bopp ci diine ñuy xàccee doo di dóorandoo comme ni ko daayira yu mag yi di defee ay sax ne toxmaan yi euh, ñu boole làmbaay yépp ci benn diine àndandoo di yëkkateendoo di tegandoo mooy suñu sabab ci liggéey bi liggéey bi tamit li nga xamante ne moom lañ ci moom lañ ko sosowoon ci commencement ba bisu xasida ak yóbbu àddee ci nga xamante ne moo fi nekkal seen Tuubaa waaye fi mu toll nii nag bari nañ ay liggéey yoo xamante ni war nañ ko mën a liggéey ci fu ñu dëkk loo xamante ni seen Tuubaa fa moom mu nekk loo xamante ni alalam la ñu war ko mën a yeesal ci biir làmbaay loo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko war a àndandoo bokkoon li jóg ko tax sax ñu ne ñu leen yóbbu liggéey bi Ndakaaru ñu tasaare ko boole doomi làmbaay yépp yoo xamante ne képp koo te làmbaay nga dëkk te liggéey si Tuubaa ñor la ñu waxtaan ak yow àndandoo ak yow liggéey bi euh, commencement bi nag suñu xel dal na ci bu baax a baax a ndax ba ñu waxee dama ne leen bu nekkee ba làmbaay ba Dakar ñun dinañ dëkk lu bare bare loo xam xamante ni ñu wut fa jëwriñ yoo xamante ni bu ñu moom mooy gàddu liggéey bi yëpp di ko doxal gannaaw ba loolu jàll tamit ki mooy sëñ bàyyi bi woo ne ma ñoom it dañoo sosoon ak kuréel lu jiitu ñu taxaw fii te kuréel bu Safinatoul Amaan lañ koy tuddee ma a kon alhamdulilah sama xel dal na ndax ñi ngi bëgg samp ab cellule Ndakaaru boo xamante nii doomi Lambaye yépp lay doon liggéey bi nag nekkul liggéeyam cet nekkul liggéeyam noonu la nekkul liggéeyam kenn liggéeyam ñu ngi lay woo ci liggéey bi ñu ngi lay talal loxo fii dem diwluñu fi dara ab dong dong lañ fi ne Ibrahima Dem rek Ibrahima Dieng mais moo yor liggéey bi fii ci Ndakaaru moo ko jiite liggéey bi tamit dañ koy tëgg lëkkale ak liggéey bi nga xamante ni moo nekk bool ñuy xàccendoo di dóorandoo benn tool la dañ ko yaatal rek amul xàcc bu seet lépp benn la li am fii mooy am fële li am fële mooy am fii loolu lañ bëggoon a indi ci leeral ak tënk daf ñoo xaw a sax ndax niñ ko programme yoon lépp bëgg dugg ak bëgg a jëkkanteeg waxtu wi ndax kilifa yi toog suñu ginnaaw kenn ku ci nekk dañuy bëgg a euh, feeñal boppam ak yéene li ñu ci bëgg daal mooy làmbaay lépp nekk benn bopp ci diine di xàccandoo di dóorandoo bu neen bu nee nii yëpp am i digal yi nga xamante ne ñoo bàyyi ko ci làmbay képp kilifa bi nga kon nag ñi nga xamante ne ñoo nekk ci suñu ginnaaw di suñu na ñoom ñu teew ci rajo suñu mambay gi kon ñoom itam liggéey baa ngi noonu ndax moom wax naa ko ba tey suñu mambay dama koy wax wax naa ko fii sànq bu ma ñëwee bu ñu toogee fii ci jataay ne waa làmbaay fa toog ñu toog ñëw ci jotaay bi te gisuñu am na loo xamante ni dañ koy wax ci ñun danañ di naan dëggu ndax bu fi yàlla dogalee nga am nit koo xamante ni àdduna bépp xam nañ ko mu dëkk fa nga dëkk ñu woote ab toog fa ñu ñëw ci jotaay boo ko fa yàlla kon waa Lambaye lan moo ñoom ñu wootee te Mame Mbégué bokk ci liggéey kon lu ci nekk wala am na moo tax bi ma ko waxee ci suba ko naa ko wax te dinaa la ko waxaat bépp liggéey Sëñ Tuubaa bu jóg ci Lambaye sama xel bu tàbbee sama xel sama xel ci yow lañ jëkk a dem wala moo dem ci keneen kon nag sëñ yow la ci ñun ñu lay sagoo fuñ mën di nekk nga ñu di nekk jëmm yaa xamante ni juum nañ ci fu ngeen ñu war a jàngante ni ngeen ñu fi jàngante ndax ay ndaw lañ te xamaguñu dara ñu ngi jégalu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah